gën a ba ngay nekk à l'école euh, kii Pélican Ndiaye Pélican il est de Guinguinéo d'ailleurs doomam sax man maa ko mujj jël Thierno Ndiaye mu nekk si man ba léegi mi ngi affaire étrangère il est photographe il a fait six ans ah, en oui, Côte d'Ivoire oui. il a fait six ans en oui. Côte il est revenu kooku papaam moo ma gën a marqué bi ñu nekkee euh, bi ma nekkee xale waaw primaire mhm. non parce que xam nga xam nga bu njëkk euh, le maître était le modèle maître mooy docteur ci àll bi maître mooy maître mooy mooy éducateur bi alors maître mooy ki nga xam ne moom mooy mooy yore justice bi su parce que su problème amee moom moo koy wax moom mooy jàngal liiral nit ñi seen lettre yi mooy xam secret nit ñi donc maître bu njëkk dëkk bi moom mooy yëpp donc euh, dafa ak sol bi muy sol moom mooy nekk modèle ñëpp dañuy jéem a sol comme li suñ maître di soloo dañuy jéema wax ni maître bi waxee bu njëkk ñeme woo woon maître di sol ay mbubu yu xotteeku wala mbubb yu dagg yooyu yu yaakaar naan bañal sa bopp yi ma man maa ngi doon gis ne bu njëkk xam nga amatul dispensaire su nawetee niwaakirin bi suñ ko indi woon dañuy wooye maître bi mu ñëw su maître bi ñëwee mu muy muy dagg këyit dagg yi ñu koy lem ñuy compter di ko def ci papier yi di ko di ko di ko lem di ko lem kenn ku nekk soo ñëwee ñu jox la nga dem lu xew rek dañuy wooyee maître bi ne ko kaay. Mm-hmm. moo nekkoon intellectuel bi nga xamante ni moom nekk intellectuel euh, euh, ci biir village yi. Mm-hmm. donc loolu moo tax moom il m'avait beaucoup marqué et puis euh, daan ñëw régulièrement suñu kër di waxtaan ak sama papa di ñëw ci kër gi donc ce qui fait que. donc dafa mujjoon comme sunu sunu kilifa daal. Mhm. waaw et puis dañ ko doon respecté. Mhm. système éducatif bi nu mu meloon jamono jooju comparé a maintenant. non xam nga bu njëkk bu njëkk vraiment y avait la discipline.